jërë ngeen jëf mbokk internet yi yéen ñi nga xam ne saay su nekk yéen a ngi saxoo di teewlu seen seen bi di ASID yi saay su nekk duñ tàyyi di leen fàttali ngeen abonné ci chaîne bi te ngeen activer cloche de notification boobu ngeen di seen ci seen écran Omaro Gueye doon ki nga xam ne cantaakoon la doon taalibe Cheikh Béthio Thioune ginnaaw bi nga xamante ne gisoon nañ ko ci biir cant ji mu nekk ci doon werekaanu Serigne Saliou di way Serigne Saliou ci lu bëri ñu gis ay jamono ki nga xam ne muy Omaro daa di dem dugg si mbirum biis bi ñu koy gis si soirée yi si musique Sénégal Sidi Sidi Diop ak Wally Seck ak yëpp ñu ko fay gis kookee nga xam ne muy Omaro Omaro nag gis nañ ne boobu ba léegi daanaka bës bi da ko yenn teg ko sa kaw waaye jot na ko wàccee teg ko si suuf kookee nga xamante ne muy Omaro Gueye li ko waral mooy mariage bi nga xamante ne jot na am diggante mag Xayo Balde Xayo Balde doon sénégambien bi nga xamante ne ma nga nekk fële sa bitim réew di yëngu si mbirum jënd ak jaay di yëngu si mbirum solok simmeeku ay yére yu taaru nekk si réseau sociaux yi ñëpp xam ko kookee nga xam ne muy Ayo Balde Omoro daal di ko jël soxna ginnaaw ba mu ko jëlee soxna nag ñi ginnaaw ñetti weer ba léegi rek daanaka ki nga xam ne muy Omoro Gueye boobu ba léegi ñi ngi leen di dégg si ay problème diggante mag Omoro ki nga xam ne muy Ayo nee na Omoro mënu koo yor Ayo def na ay. maanaam vilipande na ki nga xam ne muy Omaro Gueye ak waajuram bu jigéen ci réseau sociaux yi kàddu yu ñaaw yi nga xamante ne yaayu omoro mi ngi ko yëkkati jëmale ko ci xayoo ba ki nga xamante ne muy xayoo nekk fële sa bitim réew nee na lekkatul naanatul mi ngi dund ay jafe-jafe yu metti boobu ba léegi muy sàkku ci ki nga xamante ne muy Omaro mu may ko baat waaye Omaro dafa jot bañ ne du ko may baat ginnaaw loolu ki nga xamante ne muy xayoo Balde waajuram bu góor daal di dugg ci coow li ak ay mbokkam ak yépp taxawu ko si te Omaro indiloon ko fi warugar lu toll ci ñetti million ak li nga xamante ne muy bàgg en or ànd kook oto bi nga xamante ne moom ay Baldé sax nee na ki nga xam ne muy Omaro oto ba mu ko indil baaxul kayitu kër ba mu ko indiloon kër ga ko mayoon terrain ba mu ko mayoon sax nee na turam nekku ci ki nga xam ne muy ay Baldé nee na Omaro doon na koo xamante ne du nitu dëgg du wax dëgg nee na Omaro doon na ki nga xamante ne daanaka day guddi day génn di dox soxlam bu doxee soxlam bu ñëwee bu ko woowee bu ko jotee mu ne ko sama téléphone moo fayoon te fekk na téléphone am fayul Xayo Balde nag daanaka boobu ba léegi mi ngi yuuxu ci réseaux sociaux yi di yuuxu ci ay waajuram di yuuxu ci ay mbokkam ak am di jàmm yi ne ko Omaro ne ko may baat ki nga xam ne nag muy Omaro mujj na ko may baatam ñu fas ne ko taataan déglu message bi nga xamante ne Omaro envoyé na ko ki nga xamante ne kookee di Xayo Balde te li ñu ci gën a jaaxal maye baat lan la ci réseaux sociaux di wut ba ngay dem ci seen ab sàppa di ko fa yónnee di fa dugal sa message ne ko may naa la baat ñu fas yéene déglu message bi nga xamante ne kookee di Omaro yónnee na ko ki nga xamante ne muy Xayo Balde Omaro nag daal dinay réagir yónnee ab message ki nga xamante ne nii moo di Ayo Balde message ba nag la daal di capture fësal ko uh, ci Snapchat di si xamal Ayo ni jot naa sa papa jox naa ko baat bi yeewi naa la si jàmm ak salaam maa ngi lay ñaanal yàlla sàmm la aar la guddal say fan te wéral say cër li nga bëgg si sa dund yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal bonne chance li la Omaro bind Ayo Balde doon nag luy firndeel ni firndeel ni sëyu Ayo numéro jeex na takk ndax ñoom ñaar ñooñee euh, daal dina ñuy tàggu